aoudu billahi min alsheytaani irrajim bismillahi arrahmani irrahim wasalaatu wasalaamu ala man ursila rahmatan lil alamin sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di am mbégte bu baax a baax dellu siwaat fii ci Tawhid TV ak seen émission bii nga xam ne euh, mooy waajal li nga xamante ne bi feet bu mag bi ñu jëm tabaarakallahu te lu bare bare bari war ci jullit ñi te euh, mu am lu leen ci manqué ba xamuñu ko wala bokk bu ñu ko xamee ni ko borom bi subhaanahu wa taala di santaane mu des aw defin euh, loolu tax Tawhid TV def ay taxawaay indi leen émission bi di horizon tabaski horizon tabaski nag buñ ko déggee dinañu waxtaanee lépp lu jëm ci wàllu tabaski euh, tabaski ci boppam nan lañ ko war a defee fan la war a jëm fan la war yóbbu jullit bi lu bare bare bare bari loo xamante ne bii nit ki war na ko cee xam euh, Tawhid TV def ay taxawaay pour indil leen ko pour waxtaane ko nag euh, ci penc mi ñëpp mën cee jariñu looloo tax euh, Tawhid nag niñ leen koy waxee saasu ne lu ñuy def lu nekk rek dañuy fexe am koo xamante ne bii bu waxee ba pare bu ñu ko bu ko jullit wala boog bu ko nit ki seetaanee du laajte kii lan la wax wala kii ndax li mu wax am na wala amut ndax dañuy dem seeti ñoo xamante ne bii seen xel màcc na ci li ñuy waxtaanee. ñu andi leen ñu waxtaane ko waaye teg ko ci alquran ak sunna ba kenn du mën a wax ni ah, lii dañ koy xoolaat wala lii dañ koy defaat nii loolu moo tax tawxiid di dem indiwaat koo xamante ne bi jaaroon na fi eh, te kenn dootu ko présenté ci àdduna bi yëpp bu jëmmam yeggul fépp it nag imagem ak ak doom yegg na fu bare bare bare ci monde bi ci jàngale diine waaye ci teg ko ci noo xamante ni bu ko ndaw ñu bari di déglu ak di ko topp dinañ mën a jariñu ci àdduna ci li leen yàlla jagleel ci àdduna waaye dinañ ko mën a jariñoo ci ni leen ko yàlla sante kon euh, muy imam Biram Pouy kenn dootu ko présenté comme ni ma leen ko waxee moom la ñu am comme invité tey ñu war a waxtaanee nag euh, dugg ci wàllu historique ci tabaski waaye nag euh, xikma bi am ci biir tabaski loolu moo yëkkati émission bi maanaam xikma bi xikma ban lan la ci jullit bi mën a Euh, jariñoo lan la ci mën a jëlee lan moo tax mu ñëw lu bare bari incha allah bu ngeen toppee émission bi di ngeen euh, am lu leen leer nañ ci li nga xamante ne bi moom la ñu bëgg a waxtaanee euh, ñu bàyyi ko mun nuyoo présent du ma sax présenté wu ñu bàyyi ko mu nuyoo ak téléspectateur u Tawhid TV yi mu pare rek incha allah ñu dugg ak moom nag ci waxtaan bi imam salaamaaleykum wa rahmatullah aleykum pense que tu <laughs> wax yëpp je pense que da nga da nga yàlla yàlla sant ci amiin amiin maanaam yéwén boo nga yéwén di gërëm ñëpp di amaat kontaan ñëwaat fii ci ëttu Tawhid TV mhm. nar waxtaane lu am solo comme ni nga waxee muy Aïdul uh, Adha mhm. muy ce qu'on appelle uh, la grande fête daan ci ñëw mhm. ci yi nga xamante ne mooy uh, yi nga xamante yaakaar na ne dana amal njëriñ ay jullit yi nga xamante ngi bàyyi xel ci seen émission bi nga xamante ne mooy horizon mhm. tabaski ya Abdou Aziz macha allah jërëjëf imam xam naa ni nuyoo yi ni mu sañ sañsee noonu la nuyoo yi man na xamu ko topp ndoo moroomam ci bule yi <laughs> xam naa maa la topp ndoo <laughs> macha allah kon mbokk yi mi ngi noonu imam Biram Pouy la ñu am comme invité ñu war a waxtaane lépp lu jëm ci euh, wàllu tabaski fête bu rëy boobu nga xam ni euh, fet bu màgg la bu ci jullit bi di dem am na nu mu ko war a waajee waaye bu ci jullit bu jugee am na lu war a nekk ci moom loolu ñu war koo jàngat incha allahu rabbi euh, imam euh, bu ñu la doon laaj benn laaj bu gàtt rek boo xamante ni bi dañ koy borosaale ci biir mu dem rek mooy tabaski lan mooy tabaski dëggantaan. lan mooy tabaski je pense bi. Mhm. Euh, c'était la même question posée par les compagnons du prophète même laaj la sahaaba yi. Mhm. laaj yu saa salaam. mu mhm. nekk yii ñu gis muy du xee yi ñu gis. wala boog xar yi ñu gis wala boog bàyyam yi ñu gis. lan lan moo ko tax a jóg. Mhm. mu ne sunna sunna la wax sunna. Ah. parce que baat boo dafa am solo. Mhm. sunnata abikum Ibrahim. Mm. abikum Ibrahim donc mu wax le profil sunna la waxul fadida. Mhm. waxul waajiba sunna la wax. abikum Ibrahim mu am benn jëmm bu mu ko jagleel. abikum Ibrahim. kon pour ton sa laaj bi dañuy jël réponse bi nga xamante ni parce que la même question bi nga xam ne moom la laaj yonent bi mhm. yonent bi tontu bi mu tontu mooy sunna la boo xamante ni da fàttali seen baay Ibrahim wala seen maam Ibrahim hmm. saxaaba yi continué waat ni que lu luñ ciy am mhm. maanaam lu fête bi lan mooy impact am mhm. yow sax sa mun leen su ngeen ci rendee gàtt bi am karaw mhm. karaw gu nekk ñu effacé la say bàkkaar yee say daraja mhm. kenn ki moom la mu miinoon mooy moom xaram du am karaw ay leen la am mu ne bu fekkente ne leen la nag mu ne même chose mhm. kon le premier réflexe mooy na la dañuy fàttali yoon ci yàlla Ibrahima alayhi salaam troisièmement dañ ci am ay tuyaaba quatrièmement dañuy jégal suñu borom donc c'est c'est une tradition prophétique fortement recommandée mën wax sunna mu akkada boo xam li ëpp ci borom xam dana wax ni ñaar la les trois écoles yi gën a mag dañu wax ni sunna muakkada xanafi mhm. yi ñu ne sunna waajiba mais ñun ñëpp baatu sunna bi yéen waxoon génnuñu si donc sunna la mhm. ñu ne muakkada ñu ne waajiba mhm. boo ko firi en français mooy une tradition fortement recommandée donc kon sunna la boo xamante ne dañ koy mu mu ñu fàttali yonent Yàlla Ibrahima alayhi salaam waaye tuyaaba yi mooy xaar mi boo ko rendee karaw gu nekk nga am ci tuyaaba kon euh, bu ma déggee ci euh, li nga ni nga tekkee loolu mooy tabaski kon euh, dafay wuti tuuti ak ni Sénégal a jàppee lii tabaski. voilà parce que Sénégal <laughs> comme comme comme on est particulier mhm. loolu je sais pas xam fu ñu ko jëlee ñu ci lépp dañu particulier <laughs> donc ñun Sénégal tabaski. Mhm. moo ma ma boo xoolee sax baat bi ñu koy firee tabaski dañuy wax dañu wax Idul Adha wala Idul Kabir. Mhm. boo xoolee Sénégal Mali Guinée de d'Ivoire ñoom baat tabaski bi wax. Hmm. parce que ñoom dañ koy lié ak li nga xamante ne mooy événement boo xamante ni dafa am fête bu nu miinoon mooy feetu bi nga xamante ne feetu jullit bi la mais ñu am fête bu nu miin mooy feetu aada. Hmm. donc ba na ko tuddee tabaski dana wax motu ñu naan neex te dagan mooy diine la neex mooy feet la. Ah. fekk voilà loolu mooy donc tabaski c'est juste <laughs> dana ñoom dana fexe ba ñoom li ñu bëgg yëpp. comme ñoom dañ leen aaye woon lu bari islam loo xam ñu ne araam jullit warul foo jullit warul tabaski ñu ne ak kon yi araamoon yëpp nañu fexe ba mooñaale ko ci ko ci biir moo tax mu nekk événement bu rëy ah. ñii changé seen kër yi ñii changé seen tabax yi ñii laaj yére ñuy xar xartum xaalis voilà c'est au delà de la fête bi ngeen saa sa waxe woon naan sunta abikum ibrahim mhm. mais ñu dañ ko def naan a dagan fekkite dagan macha allah <laughs> loolu mooy différence <laughs> macha allah am na solo mhm. imam gis nañu ci ni tamit ni euh, ñi ci ëpp Euh, comme sama compagnie gi ñoom bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu amul soxna rek du ñu wut euh, aw xar pour tabaski. xam nga loolu mooy euh, ñàkk comprendre philosophie tabaski xam nga philosophie tabaski. Hmm. li nga ci war njëkk déggee moom mooy lan moo ko waral. soo xam ne koy waral donc di nga mën a xam ban comportement ngay hmm. li ko waral moom mooy ay yu bëri yu am peut-être xam naa di nga ci ñëw. moo tax ma junj ko sànq rek di xaar ne di ko laaj. que yonent Yàlla Ibrahima alayhi salaam moom dafa am dafa xaw a particulier le mm-hmm. prophète Ibrahima alayhi salaam. Mm-hmm. Ibrahim Abraham ci parce que ñoom hébreu la woon ñoom Abraham la ñuy wax. Mm-hmm. Avraham la woon sax ñoom vële ñuy wax Avraham ñoom hébreu hébreu yi donc arabe mooy Ibrahim. n'est-ce pas parce que Ibrahim après boo xoolee Ismaïl bi muy ñëw. Mm. jóge fi nga xamante ne mooy ànd ak waajuram bu jëgal Haajara. jógee fi nga xamante ne mooy Jérusalem wala Palestine ñu jógee Palestine ba ñëw fi nga xamante ne mooy Màkka nekk zone boo xamante ni xariti zar ay leen waxoon c'est-à-dire une mm-hmm. zone aride zone boo xamante ni dara mënu fa meññi pour pour montrer li nga ci déggee moom mooy c'est-à-dire l'islam dafa ñëw wala boog diin dafa ñëw pour créer la vie mm-hmm. parce que boo xoolee Màkka bokk na ci dëkk yi nga xamante ñoo gën a influence ci àdduna bi mais y a la vie cette vie là li war a doon mooy benn jigéen bu déplacé muy Haajara ànd ak doom Ismaël ñu ñëw ci benn zone boo zone aride la biñ ma toogee nag yàlla santaala si yërmande mu créé mu fa créé peut être xam naa si yenn question yi laa ci ñëw mhm. mais la la philosophie de base mooy yontaa Ibrahim moom seetlu woon na ni moom musul nekk ci environnement boo xamante ni nit ñi dañuy jaamu yàlla mhm. loolu mooy catam yontaa Ibrahim environnement mi yëpp c'est hostile parce que souvent da nga gis koo xamante ni sax moom dina mën a këram dina baax mais mbedd mi dul baax waaw mais yontaa Ibrahim mushkil bi ci biir këram la woon Hmm. parce que boo xoolee li Balla Gaye di wax naan man xaru eh, kii ni ñuy wax. xaalisu laamu xaalisu laamu nan ma kiiwee. Hmm. xaalisu laamu nan ma <laughs> ngénte yonent Ibrahima moom mën nañu wax xaalisu xëram nan ko ngénte ndax baayam ci loolu doon liggéey. Hmm. donc environnement boo xam ne yonent Ibrahima normalement moom jaay ko du xëram na waroon nekk. mais ci seetloom si Thiel seetloom après mos wax ak baayam di ay question yi ngeen di jaamu lan la posé ko ay questions yu bëri alxuraan Mm-hmm. mais bàyyam mujj yaakaar Ibrahima daf koy dinget daal di koy génne kër gi. boole kaa ñi nga xamante ne ñooy jaww ji donc la base comme seen télé bi Tawhid TV. Mm-hmm. la base de la taw tawhid kenn la borom bi. Mm. yéen Ibrahima nga xamante ne très dans sa famille dafa amoon problème ak papaam mu ak li nga xamante ne mooy tawhidam ñëw affronter la société immédiate moom mooy ñi ko gën a jege. fekk na ñu ngeen jaamoo lu ngeen jaamu ñu biddéew yi ñuy weer bi ñu jant bi. utiliser beaucoup d'arguments pour les convaincre mais malgré loolu gars yi gëmuñu koon ba gars yi dañ koy taal jëm nañ ko taal Yaaw musal ko ci mais loolu yëpp nag mu nekkoon benn test Yaaw Santa gis Ibrahima ku dëgër la hmm. mu desee un dernier test la tabaski euh, test bi Ibrahima jaar le dernier mooy hmm. Ibrahima jaar na ci papam waaw donc waxoon yaa abati mm-hmm. nest mm-hmm. boo xoolee Ibrahima après jaar na ci yaa donc moom mooy yonent bi nga xamante dafa am ñaar yu ko seeq parce que boo fekkente ne boo xoolee yonent yàlla nuux alayhi salaam mhm. moom wax na ak doomam yaa bu na irkab maana mhm. n'est-ce pas mais ibrahima tam wax na doomam yaa bu nay inni ala fil manam mhm. asma mais itam wax na papaam isam waaw yaa abati yaa abati ndax wax na yaa abati wax na yaa bu nay donc c'est quelqu'un qui dans son environnement moom toujours sa responsabilité était engagée soit c'est son père soit c'est son fils yonent ibrahima alayhi salaam moom bi mu ñëwee ni yaa bu nay sama doom gis naa di leen di la rendi fekk boobu Ibra Ismaïl am na 13 ans loolu ëpp ci côté bi euh, tafaasi li wax maaw sax ya mooy nga mën ànd a sa doom dox ànd ak moom. Mhm. bin nga xoolee ci âge mooy 13 ans la li ëpp ci am na ñeneen ñu amoon. 13 mhm. ans yooyu mu amoon moo tax tabax kaaba gi maanaam rendi gee ko jiitu woon. rendi gee jiitu woon. voilà maanaam ñu bëri dañuy wax ni président Ismaïl boo xool ñëw na. Mhm. maa Ismaïl ñëw na ba ba dëgër ba am 13 ans te fekk joxaguñu ko ndigal yar fa Ibrahima al xawaayid parce que bi muy yëkkati li nga xamante ne mooy keno yi dem na ba gën a loolu. waaw mais parce que foofu Ibrahim parce que euh, boo xoolee histoire bi nga xamante ne mooy Ibrahim daroon doon déplacé jóge chaque fois Jérusalem parce que moom ñaari kër la amoon dafa am kër bi nga xamante ne mooy aawam mooy Saarata. ak hmm. kër bi nga xam mooy Haajara. moo tax euh, baasu tabaski lépp ci ñaareel la jógee. parce que Sarata moom moo seetlu woon gis ni ci kër gi mooy la cohésion sociale mais même dans la philosophie de la tabaski on peut parler de la cohésion sociale mm-hmm. cest dire comment un père doit gérer sa famille ak euh, une famille polygame parce que boo xoolee Sarata moo nekkoon ak Ibrahima mooy sa première femme mais dafa seetlu ni Ibrahima amul woon amul woon yaa ngi retaan <laughs> oh. li nga xamante ne mooy taxandeer mu yéene ko ki nga xam ne moo newoon ci kër gi topp bi newoon ci kër gi muy Hajara mhm. mu ne ko takkal kii amaan na nga am si njaboot Hajara nangu loolu Ibrahima nangu loolu déggal aawam ci jamono jooju mhm. mu daal di koy sëy ak moom sëy ci am ki nga xamante ne mooy Ismaïl bi loolu amee nag saarata mi nga xamante ne moo yaataloon eh, ki nga xamante ne mooy Hajara mhm. mu commencé xatal affaire jigéen ñëw léegi nag moom ñoom ñaar mënuñu bokk ci kër gi si la yonte Ibrahima jot ndigalu ànd ak ki mooy Hajara ak Ismaïl génn Hmm. jóge fi nga xamante ne mooy Palestine ñëw bi nga xamante ne mooy fii Màkk dox lu bëri bi mu ñëwee nag li mu ko joxoon benn kii woon dox bu bëriwul woon léegi nag eh, yonte Ibrahima alayhi salaam li ñu ci jàngee mooy jigéen tuuti laa fi la def laa tabaski uh-huh. mooy uh-huh. jigéen day nangul borom këram waaw waaw maanaam parce que ñu bàyyi ci benn zone bu aride boo xamante ne amul dara tu es accepté de vivre ça avec ton fils mais loolu il faut nga accepté loolu uh-huh. bi ñu ñëwee gis nañu euh, Saara Haajara bi mu toog Ibrahima dem ni nga bàyyi naa ak borom santa la mu accepté ñun fii jigéen da dangeen ba ba ngay bàyyi ni ci kër sax ah mun na dépense bi duma fi toog kii ci naaj bi leen ko bàyyi maanaam ci kër <laughs> waaw waaw bàyyi ci kër ci naaj <laughs> elle a accepté que kon tabaski bii ngay gis base mooy benn jigéen bu nanguloon borom këram nekkoon ci naaj bi hmm. kon yow it nga sóor ni nangu dafa am solo Ibrahima maanaam dafa nangul boromam boromam nong gi ma nangal borom moom jur moom lépp lu mu nekk day nangu. Hmm. moo tax bi mu ñëw Ismaël dafa gént mais Ismaël mënoon na def euh, ay lecture yu extraordinaire. waaw mais donc fontul ma tara loolu mooy ce yaroon na doomam waaye du bunt xatal doomam yar na ko ci diine ba bàyyi jox na ko tous les arguments nécessaires mu xam ban comportement la moo tax mu ne hmm. gis naa man daal dama lay rendi ci sama gént waaye nag lan nga xalaat ci loolu demal nga réfléchir fanzur maza tara la réflexion. dans le Coran on fa ayna tasabun afala mhm. taqilun mhm. ulul albab mhm. fa donc parce que loolu toujours yàlla day wax ñu utiliser suñu xel fanzur maa tara va réfléchir Ismaël bi mu demee réfléchir lan la ñëw yaa abati ifal maa tu'mar donc defal donc maa tu'mar ba nga xëcc ka mooy lépp lu la digal mooy jëm si man man sama comportement sa tajuni incha allah mina sabirin Hmm. waaw donc man moom je sais que j'avais accepté mais avec un plaisir mina sabirin mooy fa sabrun jamil ba nga xamante moo nekk yàlla <laughs> Yusuf fa <laughs> moo tax ñuy wax Iidul Adha mooy la fête du sacrifice moo tax mina sabirin hmm. a neex du sacrifice lu métti la nooy boole ñaar yooyu mooy parce que balaa fet bi ñëw day am sacrifice balaa ngay dem àjjana foog nga jaamu yàlla joona toute une vie. waaw mënoo ñëw di fo di caaxaan bëgg dem àjjana déedéet. déedéet déedéet moo tax iidul adha mooy la fête du sacrifice na balaa ngeen di feetu na ngeen di jaamu borom bi sant Allah. Hmm. moo tax weer moo xool islam feetam yëpp da ko ak jaamu yàlla. waaw weeru koor balaa iidul fitri ñëw da ngay war 30 jours. waaw iidul fitri doogay ñëw. nga a fekk xaj xablaan da mhm. a am solo mooy huitième bi ak neuvième bi mhm. nest euh, euh, boobu nga xamante ni mooy zam-zam bi nga xamante ni histoire mi ngi nettali bi ñu bàyyi nga xamante ni mooy soxna Haajara foofu mhm. mu wéet foofu en tant que jigéen mu toog mais mu ay li nga xamante ne mooy ay pexe maanaam itam jigéen bi il faut que aussi ñu wut ay solution mënul hmm. tout le temps di xaar ci borom kër gi donc Haajara mënoon na toog mën na fii ndox mi nan ma jox ndox mi jeex na damay toog noonu damay toog xaar maanaam dépense bi 1000 francs la 1000 francs yi jeex na waaja bu ñëwee lu mu fekk moom 1000 francs non 1000 francs fi bàyyi voilà voilà non hmm. parce que kër gi kër gi yéen a ko bokk kër kër pour mu am équilibre ku ne ku ne ci kër mooy kër kër yi hmm. kër mooy kër kër yi <laughs> moo tax boo xoolee kër kërim googu mooy Safa ak Marwa da doon da doon dafa téye doom ji mënu ko téye ndax eh, xawoon na eh, xaw ka yërëm di dox mu moom ci naaj bi mu am fu mu ko teg fu xaw a tane di jaabante diggante ñaari montagne Safa ak Marwa di kër kër ba mat juróom ñaari yoon moo tax boo ajee maag fu nga kër kër yi doo doo fa nekk di di waaw di layam layam da ngay dox dox bu dëgër ni naf si doon doxee kër kër yi kuy daw dépense doo àdduna bi yëpp daw dépense la waaw donc moom pour sàmm tey ji Ibrahima new fi donc la responsabilité de son fils c'est elle Ibrahima dina ma fi waaye moom en tant que yaay mooy mooy mooy fexe créer condition pour doomam dund mhm. donc kon tey soxna itam bu waajur bu góor mënulee wala fi nekkulee ñoom it la war gérer kër gi mooy la mhm. gestion de la maison kon c'est équilibré bi bi mu amee nag bu jaabante yar santala wax Jibril alayhi salaam donc la moo tax yar santala balaa mu lay jox dara day xool fan nga toll ci moom waaw illaa ma ataaha mhm, am na yenn saa mu ne illaa wasaaha illaa ma ataaha loolu lam la jox lan la jox mooy maanaam jóg jaabante diggante Safa ak Marwa loolu mën nga ko. ma def ko ba ma xool. benn yoon ñaari yoon. xaddiwul bul xaddi. waaw waaw defaatal ba ma juróom ñaari yoon. yàlla jibal demal nga jël sa laafi nga bënn suuf si mu génn. allahu akbar ndox moom su la génn muy ndoxu zam-zam donc c'est une eau bénite ndox mu barkeel la yéen tamit ko fa mun a innaha mubaraka c'est une eau mun a ndox mu barkeel la bi ndox mi génnee nag ki nga xamante ne mooy xaajara jóge woon Palestine ñoom nekk ay hébreu donc mu ne ndox mi zam zam mooy na nga dal parce que ndox mi da doon génn di ball mm-hmm. comme mënu ko woon gérer mu jël ay xeer après xamul xamul nu anuma demee en tant que jigéen mu ndox mi daral daral moo tax moom la borom xam ne tabaski li ñu ci njëkk jàng mooy la lucidité mooy dal tabaski amul lenn loo xamante ni tel tel Ibrahima dafa gént waaw woo nànk doomam mhm. ni ko gis naa dama lay rendi hmm. lan nga gis ci sutura ci dal sutura ak dal mu ne ko dafa la sant muñ kat lay nekk kuy muñ kon bëggul kenn yëg ko mhm. Mhm. soxna si bi mu nekk ci àll bi waxul kenn damay dem mu yolleeg ñëw ci àll bi <laughs> di jaabande pour wut solution kenn yëgu ko bi ndox mi génn tamit nekk ndox mi yebit sam donc tabaski tout est lucidité tout tekk la mhm. moo tax yonent bi ngi njëkk laa mun ne sunnata abikum ibrahim la rek dal leen rek pour bañ ko aj fenn voilà ba nit ñi ni am na solo de abikum ibrahim de waaw bu ñëw coow li bëri mbokk fu tabaski toll <laughs> ana xar yi xar dina am en ah, yére yi vraiment mais kan sant loolu yow c'est-à-dire loolu loolu loolu fekkente ne islam bi nga xamante ne moom bi yenn saa su waxoon hmm. mais loolu yëpp teguñu la ko moo tax bi mu neen ndox mi dalal ndox mi dal loolu moo créé la vie parce que moo tax même même même côté ordre bi zam-zam moo jiitu kaaba gi hmm. si zam moo jiitu kaaba maanaam zam-zam am na ba quelque temps ba Ismaïl commencé dëgër wa is yarfan Ibrahima al xawaid doogay ñëw d'accord ba muy yëkkati kenn yooyu tam pour màkk ga am pour màkk waaw parce que Zamzam am na ba Ismaël parce que Ismaël bi ndox mi génn boobu liir la woon ku mën a yar fa alxawaayir kii dëgër nga léegi Ismaël moom ak Isxaaq foofu sax parce que euh, <laughs> Isxaaq moom récompense la ah. Saarata mi nga xamante ne moo ñaanaloon Ibrahim jël euh, ki nekkoon ci kër gi mooy Haajara mm-hmm. bi mu xawee fiir yàlla pour fayee ka mbaax gi mu lebaloon ki nga xamante ne moom mooy Ibrahim mm-hmm. ci wutal ko ak ñaareel. Mhm. yàlla da jox ko moom mu am mu am ci. def ko comme genre takku dënn. voilà takku dënn takku dënn prophète. mooy Ibrahima ñaari taawam yëpp ay ñaari taawam ñaari soxna yëpp ay yonante nañu. macha allah muy Isaaqa ak Ibrahima. Mhm. ak ah, Isaaqa ak Ismaïl. Mhm. Eh, nga xamante ni donc gis ngeen kon ñaari kër eh, jigéen ñi mën mën fa sëy. ba kenn ku nekk jur fa walu yi wala kenn ku nekk jur fa li nga xamante ne mooy yonent moo tax bi ñu yëkkatiwaat xawaayit kaaba gi itam moo nekk loolu mhm. mooy yonent bi daawoon na wax man maay man maay sa man maay ñaar ñu ne waroon rendi yonent bi daan na ko wax man maay sëtu ñaar ñu ne waroon rendi parce que Ismaïl dañ ko waroon rendi Ibrahim bi nekkoon bàyyam bi bi papaam doon def li nga xamante ni mooy seen wantalay mhm. moom la doon tombel ba nu mujj ga euh, sac Abdallah ba nu sacrifié ay gëléem mhm. donc moo tax moo tax mu naan man mhm. maay euh, njabootu ñaar ñi ne waroon rendi yéen saa salaam macha allah euh, loolu am na solo Cheikh <laughs> Birame xam naa ni lu lu leeroon wala ah. boog loo xamante ne bi nit ñi xamoon nañu waaye ndekete ni ñu ko xamee woon ak nañu ko jàppee woon mhm. wuute woon na tey gën naa leer euh, xam-xam bi gën nañ gën nañ ko gën naa leer ci bopp ñu bari bare bari euh, rawatina ñi nga xamante ne ñooy topp Tawhid TV ba ci man mi toog sax am na ci loo xamante ne bi gën naa leer ci sama <laughs> euh, macha allah tabaski mi ngi noonu kon mhm. bu ñu ñëwee ci tabaski mhm. loolu ci yàlla def yëpp jaare la ko ci maam Ibrahim géntuloo ko ñu génne soxna mu ànd ak moom dem ci àll ba bàyyi ko fa xam naa ñaareelu boo génnee am na euh, luñ la war a kii woon ndax <laughs> yaa ngi wax ni soxna yi moo moo indi tabaski moom cosaanam lépp. base bi ñaar ci ñaareel la parce que boo xoolee euh, Ismaïl la. waaw ak Hajara. Mhm. moo tax booy aje màkk li ngay def yëpp ñaareel beek def ah. <laughs> safa ma safa ak ma nu en fait islam day wax a ah. Ah, ah oui dañ mere de. ah bon euh, bon nan nan muñ rek waaw fa sabrun jamil <laughs> parce que boo xoolee boo demee Màkka da nga dégg Maqaam Ibrahima. waaw Maqaam Ibrahima bi bi yéen yàlla Ibrahima moomee ci Haajara loolu am parce que da ki ndax ba mu moomee la am Maqaam Ibrahima ba mu moomee la Kaaba gi doon Kaaba gi bon en fait c'est li ma wax doo arrangé gars yi mais am de. Saarata aussi mi nekk aawa moo jur Isxaaq Isxaaq ngay wàcc Yusuf alayhi ñoom Yankuba Yusuf. yaa ngi leen di jox takku den. waaw te ñoom seen seen caalale yëpp ñoom ay yonent nan donc. macha allah euh. moo donc aawe tamit am na nu cër bu extraordinaire na. Mhm. même même même même au delà de tout aawe ñoo ne ci ginnaaw parce que aawe ñoo créé condition pour Haajara mën kii. aawe mhm. ñoo valoriser ñaareel bi parce que Saarata su bàyyi woon Haajara foofu ci kër gi rek benn surga lay nekk ci kër gi. donc aw bi moo favoriser ñaareel ba ñaar bi am bi yëpp donc mën na delawaat donc man lii yëpp ñaareel bi am mm-hmm. parce que aw bi moo yaatu ci aw la jógee aw bu yaatu macha allah loolu loolu <laughs> <laughs> macha allah léegi euh, imam am na mm-hmm. fi fi muy jaar noonu yëpp moom yonent yàlla ibrahim mm-hmm. ci digganteem ak boromam mu nangul boromam euh, njabootam nangul ko maanaam yóbbu soxna foo xamante ne bi dara nekk fa euh, loolu liñ ci jàngat mooy wala bokk liñ ci mën a jàngat mooy kon borom kër euh, pour sa njaboot déggal la foog nga déggal sa borom. voilà loolu mooy njëkk cest à mhm. xam nga da ngay dégg ma ngi naan la boo nekk ci mbooloo naan ak dégloo. Mhm. ma yaa war a noppi. boo nekkee ci mbooloo. waaw ngay waaj wax. waaw nga naan ak dégloo. waaw ma yow yaa war a noppi kilifa. Ah. am nga fooy toll boo ñëwee ci mbooloo. balaa ngay wax ñëpp war na déglu la. dëgg la dëgg la de. kilifa bu ñëwee ba toog. ñëpp ma war a teg. waaye nga toog bëgg a wax gaa naan may leen kilifa gi wax ak déglu mooy yaa am problème. <laughs> li ma bëgg mooy cest à li tax nit ñi instant naan sama doom du ma déggal nit ñi dañu dëggal bopp mais yow noo mel sa borom. Hmm. pourquoi yow sa borom lépp lu mu la san doo ko def nga bëgg nit ñi li ngeen san ñu koy def. moo tax xoolal sa bopp moo wa fii anfusikum afalaa tubsiruun vérifiez votre relation avec votre Seigneur vous. Hmm, hmm, yenn saa Ibrahima moom loolu njëkkoon lijjanti moo taxoon ma amoon benn obstacle. moo tax boo xoolee benn benn jour yonent Ibrahima alayhi salaam gis na pour mu gëm dekki parce que moom dafa xawoon dafa xawoon sob parce que dafa mm-hmm. am loolu lu baax la maanaam curiosité boobu mm-hmm. maanaam sob mm-hmm. bëgg xam bëgg xam lépp leer mu ne yàlla subhaanahu wa taala naka ngay dekkale pose une question à son seigneur naka ngay dekkale mais xoole yàlla lu mu ko laajal xanaa gëmuloo parce que ndeke dekki da nga koy gëm ma manière naturelle yàlla day dekkil mais mu ne ko dama bëgg li dal sama xel li yatma inna qalbi li yatma inna qalbi waaw c'est-à-dire je veux être assuré mhm, mhm. c'est-à-dire man en tant que un leader avant may convaincre keneen il faut que je sois convaincu waaw waaw maanaam balaa ma naan dafa verte il faut que man ma wóor ma verte na su boobaa su ma naan verte na avec le cœur les gens vont croire que c'est vert mhm, mais fekkente ne man damay sikki sàkk vert naak vertul su ma ñëwee dafa ñu vert kenn du gëm li yatma inna qalbi ci la yaa santal boo jàngee science da ngay gis l' expérience mooy la base euh, tous ces aspects scientifiques hmm. jëlal ñeenti ñeenti euh, ñanaaw yi hmm. benn bu nekk nga nga rendi ko nga nga nga suqi leen nga jël seen ndawale nga jaxase ko nga jiw ko ci ay ay xeer nga oo leen hmm. ñoom ñëpp daanu ñëw seen ay tur ku ne nga jël benn naat benn xànqeel ak benn ginaar wala ak nga boole leen boo leen oowee seen tur yi kenn yàpp bu ne dana génn ca moroomam du laal moroomam dung yu ñëwaat ñu naawaat dem seen yoon. allahu akbar donc Ibrahima moom dafa dund expérience su tekki. Hmm. moo tax amoon yaqin. ce qu'on appelle moom mooy ce qu'on appelle une une conviction ferme. Hmm. Ibrahima noonu la meloon cest à moom dafa gëm yàlla d'une manière extraordinaire. si la am nag si la am nag turu xalilullah hmm. maanaam xalilullah Ibrahima avant ma koy am jaar na fi yëpp Ibrahima jaar na fi nga xamante ne mooy euh, gis nga safara si waaw. yaa naa rek ku ni badan ala ibrahim mm-hmm. foofu expérience boobu jaar na fa mm-hmm. Mm-hmm. jaar na si Namruud n'est-ce pas yow yaay dekki ba may dekkil boobu hitale si kafara yi jaar na fa ibrahima jaar na ci war a rendi doomam moo waffa la yàlla wax waffa la a réussi tous les tests waffa woo tax na ibrahima xalila maintenant puisque Wafa maintenant Khalila maintenant <laughs> tu as tout fait tu as réussi le test non seulement tu as réussi ton examen mais tu deviens un ami intime yow xarit nga xalil mm-hmm. donc Ibrahim moo tax yéen saa salaam bi mu amee njabar sama njabar am ko tudd Ibrahim. ndeysaan moo tax mu tuddee ko Ibrahim. moo tax mu tabaski bi bi reflété. Eh, eh, kii moo tax ñu inna inna ataynaaka al inna mu nekk noonu yàlla mu ne inna ñun yàlla ataynaaka jox xar bi jox naan la yow yonte bi al kawsar yaani al xeyrul kasiir. Mm-hmm. jox naan la xéewal ak lépp lu ànd ak moom. Hmm. loolu mooy mooy mooy parce que jour ba yoon saa salaam mooy doomam bi mu jooy génn àdduna mooy Ibrahim mu yërëm ko ndeysaan mu teeku noonu ni nga teqale ko gi ni teqale Ibrahima nag maanaam triste na la waaw su après ñu gis rango ñi di ci bët yi saxaabi nekk yaa ñu tere woon jooy bu nit génn àdduna mu ne bët yiy génn mënuñu si dara waaye xool bi ak laamin bi du wax lu wedd boromam allahu akbar Ibrahima dem gi ngay dem nag ndeysaan lu ñu triste la yaa sax mu nekk nag demal nga nga nga euh, parce que foofu gars yi ñi ngay doon ñàkk al abtar hmm. ndax yéen saa sa mënu am doom bu gudd fan yéen saa am li nga xamante ne mooy voilà doomam yi dañuy gàtt fan parce que moom moo suul ñebatam yàlla sant mu nekk nag bul faale ñooñu au contraire inaanaaka kaw sat fa solli li rabbika wan xaar fa solli da nga julli rek mooy julli tabaski hmm. wan xaar na nga looj ina saa nekk wul abtar ñooñu lay ñooñu lay yéej yi hmm. ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñooñu kët këtt mooy ki amul connexion ak boromam. Hmm. fa salli boobu sama tax ñeen borom xam ne wax sunna waajiba fa salli bi comme ñëw na ci alxuraan nekk ne ko ndigal amr la moo tax fa salli rabbika wan xar donc comme dans le Coran ñëw na loolu moo tax ñeen wax sunna waajiba la ndax dans le Coran on dit ah. yàlla ne ndigal la bu jógee ci borom bi mhm. mooy amr la mhm. mhm. loolu mooy xanafiya loolu lañ wax ba nañu ñoom dana jël ni nga xamante ne ak Shaafi ñu ne sunna waajiba la donc kon comme sunna waajiba la mhm. wala sunna mu akkada ak mhm. boo loo ci mën a xam rek mooy loo war def la soo ko mënee mhm. parce que day day màggal li nga xamante ne mooy sunna yonent Ibrahima waaye soo ko mënulee moom wàcc na la Shaafi macha allah soo ko mënee ak soo ko mënul waaw euh, euh, dañu dañu gis ni ñu bari na ñoo xamante ne bi tey ñu ngi toll ci ay jafe-jafe yu metti fii ñu toll ni nga xam ne ñu ngi ci jëm jafe yi leen ko teg mooy ñoom yëg nañu ni mënuñu ko mais fii boobu ñu ngi fi daj loo xamante ne bii pour wane ne rek mën nañ ko. c'est que xam nga il faut que très tôt pour man. Euh, comme ni ngeen def nii baax na très tôt ñu tere maanaam xamal nañu tabaski. Mhm. ba ñi xam ni fête la boo xamante ni au delà avant muy nekk fête y de sacrifices man ñu wax al adha mhm. al udhiya y avait beaucoup de am na soxna su sacrifié wu doomam nangu. Mhm. sacrifié wu nekk ci àll bi. Ibrahima nar na sacrifier doomam. Mhm. bi mu jur Ismaël nar a sacrifier vie am. Mhm. donc il fallait que mu nekk sa à dire concert d'acceptation maanaam ñëpp nangu. ñëpp nangu bu kenn nangu woon problème am. Ibrahima fekkonte ne gént na mu ne a ah, lii gént la bàyyi ma sedd du dem fenn. waaw mais na. ñi ko informé il faut être très l'information. Mhm. mooy tax tapas nga jàngee itam amul nëbb information bi. mais nu muy bëggee sa doom nga gént après tu fermes les yeux non ah. tu l'informes yaa bunayya mhm. inni araa fil manaami annii asbahukum nekkul añee man mii maa lay rendi waxul gént naa sax ñu lay rendi waaw j'ai vu dans mes moi en train de timoler fanzur maazaa taraa te xoolal baat bi nga yaa bu na jàng arab yow <laughs> ah, yow yow doom sama ki nga gën a bëgg waaw yaa bu na ya dafa am ak ak chaqwa dafa am benn mm. benn mbëggeel wax ah waaw donc gis naa moo moo tamit dafa nekk fondement sa tara même fondement sa tara loolu sa affection la mm-hmm. loo ci gis loo loo ci xalaat parce que mënoon na Ibrahima na xaw a ëppal ngeen baal ma. Mhm. ni ko gént naa damay dama lay rey. loolu ndigalu borom bi la. préparé waaw. yow moom bul sa wala mu bett ka rek yeew ko. waaw looy def ni dama lay rey parce que ndigalu borom bi la. mu ñor rek. am problème mhm. mais <laughs> moo tax ci aussi dafa am li nga xamante mooy la concertation. waxtaan bu juboo waaw. même yàlla sant la. Mhm. bu bu bu bu wax ni ñuy jaaw dafa neen laa ikraha fi nul continue en religion ma shaakiran imma kafuura voilà udxulu fi silmi kaafa nag waaw mhm. Mhm. waaw bul forcé kenn yéen bi daaw na yéen bi daawoon na si pour nit ñi baax mu ne laallaka nafsuka baatu ala nafsik laallaka baaxu nafsaka ala atharihim in lam yunu bi hada hadith asafa je te vois souffrir de chagrin pour que les gens mais non mhm. l'islam min am na shay laa tax de ababt donc loolu mooy équilibre bi nga xamante ni Ibrahima amoon na ko mu ne ko fanzur maa tara mais comme yaa abati ifal yaa abati mu delloo ko yaa bu nayya waaw waaw bàyyi sama baay booy waaw mooy affection bi amoon mhm. donc amoon nañu benn maanaam sa doom da ngeen fexe ngeen am leen entente cofeel bu nekk ci seen diggante bu nekk seen diggante bi ba loo ko sant mu defal ko def itam sa borom itam noonu nga meloon moo tax borom bi santara bokk na ci charte pour sa pour sa ñaan yàlla nangu mhm. mooy diggante bi nga am sa borom koo xamee ne une saa si dafa nekk ci lu xaram di mooy yàlla wala yére bi mu solu xaraam la wa malwasu xaraam hmm. ah, wa xose bil xaraam hmm. mu taal ay naan yaa rabbi yaa mën nga fa an na si jaabu la parce qu'il est dans un environnement illicite hmm. de déconnexion totale mais comment lui il peut avoir une connexion amuloo courant amuloo batterie amuloo crédit amuloo puce nga bëgg a wootee fa an na si jaabu la message sax da doo ko mën. waaw mu ne fa ànd na la mais kii ku mu yab. wallaay ku mu yab. ah voilà donc yonent Ibrahima alayhi salaam. Mhm. donc il était toujours connecté avec son Seigneur. mais même connexion boobu da ko partagé wu ñu fi bi ci doom ji doom ji était connecté. Hmm. moo tax ñoo dans le même parce que ñoom ñëpp amoon nañu amoon nañu wifi mooy nga xam ne tax mu nekk sa taju ni incha allah incha ñëw na. Hmm. moo yoon bi yëpp amoon na allah Ismaïl muy ni allah bi. incha allah waaw. loolu la wax waaw ah, Ibrahima mënoon na ko wax ne maa ngi jëlee ci sama borom. waaw waaye anni ara fil manami anni azbahuka. oui boobu tudd fa yàlla. déedéet fanzur maza tara. oui yaa abati ifaal ma tu'mar. waaw tajiduni nag mu doon incha allah parce que mu xam na lii mu nga sant <laughs> ki nekk ci gannaaw mooy borom bi. mais jarul mu koy wax parce que xam na ñoom ñaar relation yu affaire borom bi la. wallaahi wallaahi incha allah mina sabirin. Mm-hmm. Mm-hmm. non sax mina sabirin moom mooy bàyyi xam naa ne yow ci muñ ko ji nga bokk parce que li nga def neexu la mais amoo choix. kon yow am nga yow bokk nga ci saabiri nii man saabiri laa bokk moo tax man du man maa ciy wédde mm-hmm. amaat na man maay souffrir rend mm-hmm. man a bokk naa ci nan kon muñ kan a moom mu muñ ba man maa ci mujjee ñëw man bokk naa ci muñ kat bi nekkul muñ kat man damay muñ non non dama leen fekk ci muñ gi ndax yow boo muñoo mënoo ma wax lii. ah parce que wax nga sa sa tajudi ni saabira. déedéet. mina saabiri mina saabiri ma kon ci muñkat yooyu. Ibrahim ci la bokk. waaw dafay ñëw bokk ci mina saabiriin kon famille bi yëpp foog ñu mën koo muñ loolu. waaw tabaski kon dafa am loolu. Hmm. mooy esprit boo xamante ni mooy nañu bokk sacrifice bi. ku ne ciy hmm. def. moo tax ci islam ñun la. même kër gi bu nu amulee njëgu tabaski mhm. nanu fekkente ne nag la nan man juróom-ñaari nit mhm. ku ne am loo joxe ngeen tabaski hmm. Sénégal loolu waroon def naa polu chef bi xar boo ko mënulee am famille yu mag nanu waaw ay lu man ñeenti euh, euh, waxambaane ñoo bokk ndey bàyyi bokk ci benn kër gi hmm. ku nekk na génne cent mille muy quatre cent mille wu ci ngandi nag ñu tabaski tabaski bu ngand am tuyaaba kii juróom-ñaari juróom-ñaari nit parce que bu dee feex foo man juróom-ñaar donc wala donc yooyu yëpp ay parce que technique la yoo xamante ni wér na. waaw loolu loolu loolu xam ne am na ñoo ñoo xamante ni fi mu nii pour ñu def loolu day doon problème ci biir kër gi. waaw mais problème ba kan moo ko indi. kan mu nekk xar bëy sax na tabaski. Eh mais Sénégal doo gis mukk borom xam-xam wax wax wax <laughs> ba ba ba ñuy jaaya xar sax duñu jaay bëy. duñu jaayale bëy. mais boo tabaski yenn saa nga ay tuuti bay rek. mais boo tabaskee boo boo boo naree nekk ci kër gu mag yor fa soxna léeg-léeg day dëkk ci sa nopp ñi samay nawla lañ bu ñu jënd xar yi yow. te yow ah, jëndoo c'est pas la ma te loolu mais loolu sunu tabaskee. loolu hmm. sunu tabaskee loolu moom suñu la aada bi la aada nag moom comme nekkul diina nag ñi muñ rek muñ ay aada <laughs> ah booy sóor booy sóor ndaw si. xar nu mu war a toll. Hmm. ah léegi rek maa ngi dégg ñu ne am na ñuy luye ay xar. luye xar pour ça maanaam da ngay da ngay luye benn xar bu jar six cent mille. n'est-ce pas yow ko sa buntu kër ba ñëpp gis nga bu foto seeg ñëpp naa ma sàngam ba tabas des deux jours wala benn jour bu gudd nga delloo ko bu bu fajaree nga indi vrai xar bi ngay rek sa biir kër. ah. léegi léegi léegi léegi xam nga loolu xam nga bu niñ toll foofu di luyee xar pour tabaski. doy na waar waaw doy na waar am ñoo xamante ni parce que njëgu xar bi kenn waru koo xam da nga toog benn saa kii naan la xar bi un million laa ko jëndee mais sacrifice la. Hmm. Ibrahima noonu ma dalee woon ba gént wax ko doom kii yëgu ko. bu won yàlla kenn ko xam. Mhm. alxuraan la de. Mhm. Mhm. seen seen décision boobu ak Ibrahim ak Ismaël borom moo tax ñu xam ko. waaw waaw. kon moo tax tabaski lépp sutura la. Hmm. mooy yeneen saa même bi ñaari xar yi ci sutura la woon dafa ne yaari soixante la ñaan wax ko mbooloo de comme ni muy defee euh, asalaatu jamaa woo mbooloo déedéet. yeneen saa bi muy tabaski dafa nekk ci biir këram mu jël ñaari xar mu ne bisimilah kii sama njaboot la. kii ak képp koo xamante ne ci secret. tabaski lépp a zam zam léppay dal xaar bi yenn saa yi nga toog benn mbokk naan la booy am naa xaar mais finalement deux cent mille la jëndee mais jaru ko on n'a pas besoin de certaines informations même day dal ni nitu diine yi waaw man sama budget trois cent mille déedéet yow bul bul fixé yow daal amal amal sa njëgu xaar dafa sa poos mhm. demal dara jàppal ni li sacrifice la ngi sa borom bi nga waxaale ba am koy ñëw bu la nit ñi xaar bi na ko nga ne ah baax waaw bu fekkente ne ki la day laaj pour xam prix méttiwul mhm. mais boo ko dee wax pour nit ñi xam sa xar na mu toll da gis koo xamante ne day indi xar bi gars yi naan que yow sa xar mi pourtant a rëy de maanaam pourtant trois cent <laughs> xar mi cher na xar bi raas la donc mais loolu ñun la cher bi malheureusement c'est nous ah cher la c'est <laughs> loolu kon ñoo sonal suñu bopp daal ah ñun la de ñoo sonal suñu bopp ah, ci ci tabaski xam naa euh, euh, tabaski mhm. Euh, nit ki pour mu ci balaa mu ciy dugg. Mhm. nan la war a waajalee boppam. très bien xam nga tabaski. Mhm. nee naa la conséquence la mooy conséquence mooy day am mbir yu bëri yu xew tabaski doogay ñëw bu dee jullit bi am na ñoo xam ne war a aju màgg. Mhm. souvent dañuy bàyyi côté boobu dañ koy fàtte tabaski tabaski mais tabaski fukkeelu fan la. <coughs> bu ne fukkeelu fan kon mooy amoon na juróom-ñeenteelu fan. nga xamante ne mooy nga xamante ne mooy euh, yow ma rafa te ren tabaski bi yow ma arafa bi. nekk nar la nekk ajuma adduna bi adduna bi ñeneen ñi ñu ngi tabaski li nga xamante ne mooy mooy samedi mhm. ñeneen ñi ëpp Sénégal ñoom dimanche la bon loolu moom beneen mbir la boo xamante ne peut-être loolu tax ñoo jóg mais li am mhm. solo rek mooy mhm. <coughs> tabaski li ko waral <coughs> mooy li nga war a waajal dëgg dëgg dëgg mooy jullit bi en tant la tel war a wax ni sama yéene sama intention tabaski bi lan la mooy l'intention yéene balaa dara di xew. waaw intention. tabaski bu dënmal na nga ni lan mooy sama intention lan laa ci war a def. Mhm. lan moom ma ci war. nga posé sama question boobu en tant que jullit ñu ne lan laa ci war a def yooyu saasam nee na fukki fan tabaski ñuy fan yi gën. Mhm. kon eggaguma dixième booy reen di xar mais am na lu ma war a def si dix jours yi. waaw yooyu saasam ñu ne dafa bare woon muy wax subhanallah walhamdulillah laa ilaaha wallaahu akbar mun na ngeen koy bareel ci fukki fan yooyu ci fukki fan yi parce que fan gënu ko yonent bi rek daana woor des jours yi li ëpp mun na ñi ko mënul woor nana woor neuvième bi hmm. mooy yawmu arafa mhm. mu teg ci beneen bénéfice mooy mën ne yawmu arafa ku ko oor di nga am maanaam daan la faral bàkkaaru ñaari at at bi nga génn ak bi nga dënmal mhm. yow loolu leer sa ba benn <coughs> ngeen baal ma mhm. deuxièmement nga ni loolu su ma diggante sama borom la mais sama digganteeg nit ñi lan laa ci war def. Mhm. nga ni man de borom alal la kii ni man awma alal ki am alal ki am alal day wax ni man de tabaski bi de danaa génne benn budget trois millions pour dimbali ko nit ñi loolu li sut nga ni ngeen trois millions ma jëmal ak nit ñi mais damay jël benn un million ma jël sama xar bopp. Mhm. jël deux millions bi ma def ko ay cent mille ba mat vingt ma jënd xaru vingt xar cent nga gis hmm. millions jëndee ko ay xar xar bi un million lay jar soxla ñuy xam moo tax hmm. moo tax yow bul bul jugé dara waaw di nga gis ku jënd xaaru un million nga naan doy puukare alors que xamoo xamoo xamoo dara comme pour ñëpp noppalu hmm. bu ko wax ne sa xaar un million la yow boo gisee xaaru un million bu ci commentaire kii xaaral un million nga ne ah yàlla moo ko mën loo ko barkeel mhm. parce que yaa am na ñoo xamante ni mais yéen saa sanam wax tabaski xaar bi lu mu gën a rëy moo gën loolu xaalis bu xaar eh, bokk na ci surul yi sax xaar bi warul warul loof waaw loof donc xaar bu rëy nga war a yéen saa ñaari xaar yi nga xam ne moom la leen di mooy dana wax la ay xaar yu rëy nanu yu béjjanu hmm. ay ngeen ay kuy lañu wax yéen saa ay kuy la leen ku mën am kuy n'est-ce nga def ko mais léegi la léegi la xaw comme léegi mais boo demee dëkk ba nit ñi dañuy yar foofu. waaw waaw ko xamante ni du problème alal sax mais xar mu lay rëy parce na un an pour préparer que. Mhm. loo xam ne day koy julli war na mën am xegma. waaw pour di ko mhm. yow en tant que nga xool nga war def mooy jaamu yàlla li nga war def. Mhm. deuxièmement sa relation ak nit ñi troisièmement ak sa njaboot nga war a yar sa njaboot bu tabaski ñëwee ñun du bëri duñ ko def famille yi. mooy toog waa famille yi. parce que parents yi bi gis nga Ibrahima bi parent bu ne war nga def sa kër bu tabaski jotee nga woo xale yi ak soxna si nga ne ah tabaski nañ dënmal de ah lan ngeen gis lan ngeen gis moom mooy n'est-ce pas ndax xale yi damay jënd yëre yu bees papa jaru ko jar na ko. Mhm. wala boog nga ñëw xale yi damay jënd bees mais nag mbasin la woon tey nag euh, tissu simple lay mhm. ah wala nga dajal xale yi nga leen tabaski mi ngi jëloon mais nag marché neexagul. waaw fàttewu ma den mais suur pression bi da nga koy wàññi. mais parent bi fekkente ne waxoo dara say doom presque day gën a yenu parce que ah. chaque fois boo ñëwee xale naan papa ñi ngi xool waaw ñi ngi xool ah, yow nga dem <laughs> euh, ki la waroon fay fayu la banque bi yéex a jot kii bi salaire ñëwagul nga ñëw pression boobu nekk ci mbedd bi nga ñëwaat ci kër ga xale di la xool papa parce que yewe yewe yeweegoo askan parce que fansulment daatara xoogoo ko <laughs> moo tax pas très tôt da ngay teel wax ak njaboot gi ah, gis naa benn waaye boo xamante ne moom doom yi ñooy ñooy la jënd xaar yi doom ñooy dem tànn xar bu ngan bon heureusement seen papa mën na ko. doom ñooy dem tànn xar bu ngan papa bi ngay jënd. parce que kooku peut-être mën na ko. Mhm. mais am na koo am ne c'est le contraire. moom mënu ko waaw ndeysaan nga wax ak soxna yi. ñu am ay soxna yu bëri ñu am kenn soxna tam nga wax ak ñoom. Mhm. tabaski dina nga il faut c'est-à-dire le dialogue ñun wax. Hmm. ki lay laaj ki di laaj ki di laaj parent bi moom di di maanaam di subi di dékku di dékku. day xëy mu explosé wala mu dem lebi. waaw day soo xamante ne tabas day sonn. waaw bu ñuy rendi xar bi moom mi na am na xaru daaw ba léegi ñu koy fay. ay boru xaru daaw ba loo xamante ni day dépassé six mois ci fay gi sax wàcc na la. ba mën a fay. Hmm. fekkente ne da lay sonal fii ak juróom-benn weer. Hmm. mënoo ko. boo xam ne mën nga lépp tabaski de. waaye bu mu fekkee ne day ëpp juróom-benn weer mooy mënoo ko nag pour fay gi waaw waaw léegi kii kii kii kii kii kii fay depuis daaw ba léegi waaw parce que li tax mënu ko mooy parce que li tax eh, borom xam wax loolu alors ak seetlu la parce que fekkente dafa ëpp at day fekkaat beneen tabaski waaw donc muskil yi mbëkkante loo xamante ne da nga réglé benn problème boo xamante ne beneen problème day ñëwaat kay ko locataire léegi mënoo mënoo mënoo leb loo xamante ne un an la un an ñëwee a fay bor wala war a xar xamante ni day mën a ma mënul lekk parce que mënul woor parce que woor ñu ne que da ngay xaar ba at bi jeex nga fay ñu muy répété wu ñu ne ko yow de de de génne li nga xamante ne mooy kii parce que mm-hmm. mënatoo woor. mënatoo ko moo tax mag mi mag mi ñu ne ko mënatoo woor parce que condition yi tax wooroo day gën a répété waaw du wàññeeku. du wàññeeku am du wàññeeku. yaakaar ci nga mën a woor ndax màggat nga. Mm-hmm. kii comme am nga ñu yaakaar ci moom mën na fay bori. Mm-hmm. ñu ne wàcc na la ndax sunna la boo demee ba condition yi ñëwaat na nga def ko. il faut que nit ñi xam ni sunna tabaski. boo ko mënulee wàcc na il faut que ñu gars yi gëm mais comme que fontu Matar amul nag gars yi loolu du am. waaw comme que ah, waxtaan amul. dialogue bi nga wax amul. amul léegi mhm. parent bi il est obligé kër gi ma mu rendi xar. te léegi société bi neen nag foo nga rendi moom mu gëm dafa war a rendi. Mhm. famille gëm la dafa war a rendi. waaw ba pare nag moom li situation mooy amul. quatrièmement xar bi day gën a cher. waaw cinquièmement mooy xar bi non seulement dafa war a ñëw mais dafa am nu war a mel. waaw. bon xar rek amu problème pression pression xale yi bu sa dëkkandoo génne xaram sa ay doomam topp ko yow nga war a def lu mel noonu ak te loolu mooy xar mi waaw mais da ànd xar mi <laughs> mooy xartum bi waaw waaw <laughs> mooy yooyu xale mais xaalis bi war a togg xar mi muy xar xaalis xartum mm. ñetti xëy yooyu <laughs> su ne di xëy loolu mooy li am eh, sonal nañu bari macha allah. Ah, léegi nag tamit bu fekk boo comprendre nag natt la bu amoon. Mhm. si benn waay bu nangul nga xamante ne moom mooy baay baayam. Mhm. baayam ji nangul boromam. Mhm. ba loolu jur loolu yow da ngay gën a dal. macha allah nga xamante ni dangay woon ma wax njaboot nga expliqué li ñu comprendre. macha allah jërëjëf Imaam xam naa ni euh, li ma li ma li ma ciy xaw a kii tuuti rek mooy. Uh-huh. Euh, fukki fan yi yu njëkk yi ci euh, weeru weeru tabaski mu muy Zulhijja. Euh, fukki fan yi dafa am ñoo xamante ni bi moom dañ ko def obligation ni fukki fan yëpp la ñuy woor ndax c'est forcé nga war koo woor non non li ma la waxoon laa la répété sunnata abik ibrahim sunnata abik ibrahim dara da ci farata tabaski amul obligation même yëpp arafa sax woor ko hmm. mais dana wax ni bu ne sunna mu akkada borom xam ne dañ ko nii ne loolu def ko moo gën ñàkk koo def ñàkk koo def lu bëri ngay ñàkk te def ko di nga am lu bari voilà hmm. loolu intelligence la waaw donc kon dara du farata. Mm-hmm. waaye comme que mooy fan yi gën. Mhm. mais yow boo fekkee da intelligent mais da nga loo da nga allah. donc nekkul farata. Mhm. weeru koor moom mooy farata. Mhm. mais ku ci woor da ngay am ay tuyaaba. macha allah maanaam opportunité mi ngi mel rek promotion. Eh, promotion promotion crédit bu neexee jënd bu neexee bañ jënd. bañ boo jënd da nga am 3000 pour cent. yéen a la ko xam ci jëndul. d' accord. donc promotion la def ci ci bi. Euh, naa la promotion la yu wa naafila mooy ndolent mhm. parce que seen tuyaa bi mën na wàññeeku si fara tey mhm. ngeen naafila donc sunna bi jàppale que naafila boo xamante ni day régler sa problème mhm. maanaam maanaam ay tuyaa bi yu bëri la gis bu ñuy dend xaar bi balaa deret bi laal ñu effacé bàkkaar lan yanaala luhumuha wala dimaaha walakin yanaalu taqwa minkum donc am taqwa te illaa man ataa bi qalbin donc loo xamante ni indi taqwa te taqwa nekk condition pour dugg bi àjjana mais heure condition am taqwa da ngay créé weeru koor la alakum tataxun mhm. rend bi mën nga am tataxun mhm. aji mën nga am tataxun mhm. même d'une manière globale jaamu yàlla pour tataxun la waaw loolu wax yaa ayyuhan naas a rabbakum n'est-ce pas loolu yàlla yéen nit jaamu na sa borom allazi xalaqakum walazi min qablikum la'allakum tattaqun donc parce que mooy li nga xamante global foo ko mën a fekk jëral tabaski mën nga ci am koor mën nga ci am julli mën nga ci am jaamu yàlla mën nga ci am comme nga beneen beneen fursa la mhm. pour ma mën a ama tax taxoon kon damay wut xar am tax taxoon bi mhm. donc loolu moo lay motiver ñu ne kon non seulement xar bi mën a mais sóoral ki xam mënul am xar comme mënu am xar dix jours nga am tax taxoon bi yow comme ñëpp dañuy sóor ñëpp <laughs> ki nga xam ne amul xar waaw waaw moom na na woor dix jours yi woor yem arafa moom na comme ñëpp allahu akbar comme mu amul xar islam ne ne a ah, yow mii leen xar bi tamit xar bi ñetti parti la benn bi pour yow la waaw la famille benn voisin bi la benn bi nga saraxe ko kooku ko ñu la saraxeloo mooy ki nga xamante ne moom woor na dix jours yi mais amul xar mais moom dafa am wàll ci sa xar yow mooy équilibre bi le fait que islam mu ne am na ku ci maam xar xar bi ñetti parti la mooy am na koo xam ne naru rendi bu ñëpp rendee ko problème am na islam ba ma ba ma xaaja xar mi ñetti xaaja la xam ne am na ñaar ñoo xam ne amuñu xar ñoom. Mm-hmm, mm-hmm, dégg nga mm-hmm. <laughs> xaaja xar mi ñetti xar. waaw la am na ñaar ñoo xamante ne moom du am xar sant paar day génn. ba yor saa sam ren mu ne man la bii sama mm. bii ñi amul xar la kon ñu bëri am xar. Mm. tant que nag ñu ngi gëmloo suñu bopp que ñëpp war am xar rek mooy comprendre ñu sunna bi. waaw comprendre ñu ko ba ko. il faut am ñenn ñoo xam ne dañ jox ndawal mais boo gëmee ne ñëpp war a rend yàpp xolam moo tax dégg ci lu nekk eh, jël alalu jaamur wax wax lu dëgg pour am xar mhm. ah ngir salu ngir yooyu yëpp pour am xar yaa naa rien compris <laughs> imam yi ñu ciy dugal fan yi ciy dugal ay ay ay ay euh, euh, xaw ma lan maanaam waaw fallere goro fallere goro maam ngoog waaw yooyu ñu ciy dugal noonu mooy aada gi rek mooy suñu tabaski raw ma suñu tabaski la parce que islaam tabaski bi genre kii la sacrifice la. Hmm. sacrifice nag mooy léppam dafa am loo ko war def mooy saa su mën la xar bi warul muuma. warul am na ñoo xamante ne bii loolu ñuy def noonu. moom la ñu gën a farataal que saraxe bi ñu ko war a saraxe. parce que loolu aada bi la. tey da nga naan li tax jigéen ñi di sonn ci xar mën a rëy. waaw parce que tànk boobu ñuy jox seen goro. Hmm. comme que tànk rek la bëgg nañ goro bi gisul xar mi bu tànk mi ñu imagine xar mi nu mu toll. imagine xar mi nu mu war a toll <laughs> xam nga xar moo gën a tuuti eh, maanaam tànk moo gën a tuuti xar. waaw bu xar mu tuutee kay lépp may tuuti. lépp may tuuti mos. léegi nag comme bu ko yóbbu tànk bu ndaw da ngay si ñoo xamante ni seen xar day ndaw sax ñu ñu ñu fexe bu benn xaru mag yokk seen goro bi man xam tànk bi ni jox seen gore bi nekku tànku bi ñu bi lijjanti la dañ ko lijjanti ne yow seen menum copine yónni ma sa xaru tànk bi rek ma ma jox la ndawal ñaata kilo la mu ne kilo jox ma tànk bi rek man ma am nu ma ci def jël tànk dafa ba rafet am bi kay dama jox ko gorom gorom tigi na ah jëw xaram bi rëy na de fekk xaru benn copine la mais loolu ñu ne yooyu <laughs> na ci la noonu suñu tabaski waaw moom ay aada la te nag ndeysaan man loolu mhm. waaw moom Euh, c'est c'est un peu macha allah imam conseil bi ngay jox euh, boroom kër yi nga xamante ne bi toll nañ ci. très bien seeni i famille. Mhm. soxna. Mhm. nan la ñu war a dundee tabaski. conseil bi ma leen njëkk jox ma ko jox sama bopp mooy. Mhm. gën a lucide dal. zam sam dal. benn. deuxièmement lépp loo xamante ne mënuñu ko wàcc na leen. lépp lu ñu mënul wàcc na leen ñaar. ñi waxtaan ak seen njaboot. njaboot ngay waxtaan ak ñoom. parent warul rëy. waaw da nga war a wax xam xam. Mm-hmm. amul fenn ci na waxee boo amee ñeenti soxna ñeenti xar nga war a rëy amul. Mm-hmm. ah yéen saa sax ñaata la amoon benn xar mu sa da nga mos dégg mu naan soxna Xadija sa xaru Xadija xaru Aïcha xaru Xafsa ah, ñaar yóbbu yóbbu ñaar yi. waaw moom li waaj wax la amul fenn <laughs> donc tabaski amul rapport ak loolu donc benn xar la. Mm-hmm. mooy waajur bi moo koy rendi dajale famille bi su mën a nekk ah la nan wax donc ñi mën a boole seen famille nañ ko boole su mhm. mën a nekk beneen bi mooy aussi ñu sóor ni feet la boo xamante ni feet la boo xam ne nekk ci ginnaaw mooy doomu aadama bu noonu tan faat mhm. yar remplace ñu sóor ci nangu bi nga xamante ni Ibrahima nangu woon na ka mhm. ak Ismaïl ak ak xamante ni moom mooy Hajara nangu boobu ñu nangu woon yow nga ne ah bu tabaski bi jeexee de jëlaat naa un an pour sama borom ni ma amee pouvoir ci xar bi ba rendi ko di lekk mu neex noonu naa jëlaat un an pour préparer sama borom maa ngi sant yàlla mi ma jox démb ara arafa bi ma ooroon mhm. ma effacé sama ñaari bàkkaar ñaari atu bàkkaar naa gën a jelawaat njukkal eh, maanaam njukkal sama borom gën ko jegewaat mooy la àllakum mhm. te taxawun te taxawaa min kum boobu noonu ngay déggee mooy bu tabaski bi jeexee mm. mu joxaat la beneen pouvoir doo doo sañate bàkkaar da nga mënoon ci dee xar mi dee mënoon nekk nit ku nii rendi comme nekkul man nag kon naa créé waat connaissance pour jege sama borom mooy ak taqwa minkum boobu hmm. mooy bu jeexee rek créé condition pour am diplôme ak taqwa bi mooy bu jeexee rek nga gën a ko sa borom boo xalaatee xar mi génn na àdduna nga ni subhanallah mënoon nekk man hmm. deret bi génn mënoon na nekk man comme loolu yëpp yàlla musal na kon encore plus de concentration est-ce allah <laughs> <laughs> mhm. euh, pour ñu tëj euh, kii bi. Euh, lenn lu ma ci xaw a dugalaale tuuti. Mhm. ci ay dégg yomal qiyaam bisu aljuma taxaw. Mhm. te dañoo waxoon ni bisu arafa la yoo doon. waaw xaalis boobu wér na. wér na yow ma yow maanaam yomal qiyaam buy ñëw jour aljuma la xaalis boobu wér na. kon sunu sunu arafa gi mbaa gars yi duñ ci. bàyyi xel bu baax tiit ci lool. bàyyi xel lool tiit moom chaque jour la war a yam. Mhm. maanaam nit ki moom chaque jour. iqtasar bi saa wan chaqal xamar. iqtarabati saa wan chaqal xamar. Mhm. bi yenn saa salaam xaaree weer wa moom la yama xiyaam ñëw moom. donc jege na moom <laughs> benn deuxièmement mooy bi ko yàlla yónnee ak yonent bi bu istu wasaaka xaa tey ni yàlla bi li mu si baaraam bi. moom moo tax moo des yemal xiyam donc yemal xiyam ban ma yónnee la yemal xiyam jege si ba ma xaaree weeru instance la la yemal jege si kon muy suba ak muy gannaaw suba moom jege na pare ak mandarga yi nga xamante ne alamaat yi nga xam ne ma nga xam ne yemal xiyam jege na yooyu yëpp ñu ngi si hmm. kon nag bu fekkente ne mais li ma li ma jaaxal ak mooy am na yu gën a yoo xamante ne mooy alaamaatu kubra yi. waaw waaw donc comme yooyu ñëwagul mun nañ dalal xel. <laughs> mën nañ dalal xel ah, mais yàlla na mën a xëy benn benn benn benn fan mu indi yooyu yëpp <laughs> accéléré mais nan yàlla moo ci am solo. parce que li waaj naan la comme que dee day bettaane day day bettaate. day bette uh-huh. dee day bettee. donc yow jël jaamu yàlla rek même bu la dee bettee yow doo am ak mbetteel. waaw waaw. dëgg la même bu la dee bettee. yow doo am ak mbetteel. Uh-huh. Mm-hmm. la ma doon am mbetteel fekkente yaa ngi jaamu yàlla kee mm-hmm. bu la bette tamit yi amoo mbetteel da nga naan li ma su ma deewee baax na waaw waaw waaw waaw mm-hmm. ñoom malaaka bu leen rey ñoom ñoom tayyibin wa zalimin nafs ba am na ñoo xamante ñoom bu leen malaaka rey ñoom zalimin ñoom dañu doon seen bopp waaw mais yow tayyibin yow macha allah moom xaal la man jabar bi nga xamante ne yaa ngi génn àdduna fekk yow tayyibin yaa ngi ci environnement boo xamante ne bu baax la environnement baax boo nag mooy nit heure bu génnee àdduna heure bu yeewoo dans sa journée. Mhm. na nekk ci environnement boo xamante ne allah waaw loolu dina ko jural loo xamante ne alhamdulilah waaw mhm. dama dama bëgg nit bari duñ koy waxtaane fu bari te muy tombe te nit ñi duñ ci bàyyi xel euh, dafay jar léeg-léeg lu mel ni boo amee mm. fi nga jëm mm. jaamu yàlla moo la fay yóbbu mën naa nekkit nag loo xamante ne bi mën nga faa bañ yegg mm. kon ñi ngi ci fukki yi nga xamante ne bi mooy fukki fan yu njëkk ci zulhijja macha allah te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale woon yomal xiyaam ci bésu àjjuma lay taxaw te dafay tombe ak arafa te bii tombe ak moom nit ñi war nañu bàyyiwaat xel bu baax ba puukare yi ñu war a yóbbu ci tabaski ja ñu bàyyi ko xel ba mu bañ cee yegg mooy ñi nga xamante bi ñi ñu ñi naan fee laay dem fële laa ko war a. Uh, waaw ñi dem dar ba ngoog mu ngoog kenn ku ci nekk uh, ak na ko war a waajee. mais ñu jiital ci borom bi subhanahu wa taala ba nga xam ni. Euh, di nga xam ni li nga jëm ab jaamu yàlla la sunna la nga bañ cee def euh, lu la ci yàlla di mere. imaam lan ngay tàggoo téléspectateur yi. li may tàggoo moom mooy euh, ñu ngi dënmal fer yi. Mhm. yàlla yàlla yóbbu ak jàmm. amiin yaa rabbal alamin. ndeysaan parce que àdduna chaque mhm. di am. Mhm. a a yàlla nañu yàlla fekkee ñu jaamoo ci borom bi loo xamante ni dina ko nangu. amiin yaa rabbal nangoo mu jëriñu. waaye jëriñ li nga xamante ne mooy xeet yëpp. waaye itam montre une image de l'islam. wane ni islam aussi Euh, ni mu valoriser doomu aadama si nga léegi génn àdduna ni mu bëree mhm. yaa santaala remplacé dund doomu aadama ak bàyyi mhm. wane waat beneen cër bi nga xamante mhm. da nga koy déggal ci tabaski may nii yëpp war nekk ay nit ñu def ko ay bàyyi ma yaa santaala donc loolu laay jox ni nii dañu bàyyi xel heure mu gisee xarit rek xam ni encore yàlla dafa valoriser doomu aadama suñ gisee xarit xam ni encore yàlla santaala doomu aadama nag kon pour mu delloo borom bi cër bi rek mooy mu koy jaam moo tax mu ne wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun allahu akbar macha allah jërëjëf uh, imam Birame Pouy uh, macha allah moom la ñu dalaloon ci horizon tabaski ñu waxtaane lu am solo lu jar a bàyyi xel lool tey ñaan yàlla subhaanahu wa taala ni ñu ko waxee ba mu leer nañ ñi yàlla nañu yàlla may ñu dundee ko noonu mbokk yi Tawhid TV ak ci ay taxawaayam ñu ngi gërëm euh, waa régie Cheikh Abdoul Karim gërëm Cheikh Mansour mi nekkoon ci son bi euh, monteurs yi journalistes yi caméraman yi ñëpp rek ñu ngi leen di ñaanal borom bi subhaanahu wa taala ci liggéey bi nga xamante ne bi teg nañ ko ci loxo Alioune Badara Diack mu koy liggéey liggéey bu am solo ñoom ñëpp ñu ko ciy jàppale ñu ngi ñaanal PDG yal na yàlla dëgëral ko taxawu ko Euh, sàmm ko ba li mu bëgg ci këram gi yàlla defal ko ci lu raw njortam ak mboolem koo xamante ne bii rek yaa ngi ci di ko jàppale di gërëm imam Biram Pouy bu baax sunu invité bu euh, am solo bi macha allah euh, di ni ñu koy faral di waxee saa su ne dañuy am mbégte di ko déglu ndax li ñuy jàngee ci moom dafay bari macha allah yal na yàlla sàmm la yal yàlla aar la yàlla taxawu. Mm. kon mbokk yi fi la ñuy yëkkatee jotaay bi incha allahu rabbi di leen digaat daje nag ci yeneen i émission incha allah ci kanam. Euh, ci fan yi rek incha allah du du yàgg dara ndax orison tabaski la ñu wax bëgg nañu fii yëpp lépp lu jaar lépp lu war a am ci tabaski beeg ah, ci xar yeeg ci yére yeeg ah, ci sañse yeeg lépp rek incha allahu rabbi ñuy waxtaane ko ba nit ñi gën cee yeewu incha allah euh, foofu la ñu yëkkatee kàddu yi ziyaara ñëpp baalu xaq ñëpp asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.